ñu ñew ci xew-xewu jamono bi nga xam ne rewum senegal ray yi bari na lool ñu ñi ray ay ndaw lañu lan mo waral ñu leen di ray waye nak ku sa app jot rek nga jéxal waye nak ndax waru ñu mëna fagganduko ay outil yu bess ut ay caméra surveillance ci suñu biir kër wala sax suñu alentouru kër fu mëna doon ngir yombalal police bis bu jafé jafé amé moo tax insécurité bi nga xam ne am na ci réewum Sénégal président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre bi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ñu ngi leen ci woo bu baax a baax ngir ñu gën cee mën a gaawantu def ci li nga xamante ne sénégal Sénégalais yëpp dañuy am seen xel bu dal seen conscience tranquille ndax tiitaange yooyu bari na moo tax Cheikh Anne bokk ci parti bi ñu wax Pastef fëri ca New York indi na ci ay solution yu doy waar mbokk yi teewlu seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñu ànd ñun ñëpp rek seetaan vidéo ba mu jeex aimé ko partagé ko ngir ñu bari ñu féete ci réew mu Sénégal ak bitim réew daal di ci mën a. ñooy di leen ziar seen frère la Cheikh Anne ma bëgg a ñëw si affaire Aziz Dabala bi ñu rey euh, man nag si beneen côté bi laay ñëw muy côté sécurité bi parce que tey am na fi jamono toll ak fi àdduna toll am na yu bari yoo xam ne boo ko defee actuellement ni mën nga mucc si yi nga xamante ni mooy rey gi nga xam ne mu ngi mu ñu ngi koy def Sénégal wala bu amee tamit ña ko def automatiquement di nga dimbale police pour ñu jàpp leen. Euh, ma wan leen si benn exemple si ngeen euh, lii caméra surveillance la lii euh, sama kër la sa Sénégal voilà caméra surveillance yi man maa ngi New York. lépp lu sama kër yendoo suba ba ngoon dama koy gis te caméra bi sama téléphone la nekk sama poche jënd leen ay caméra surveillance ngeen def ko si seen appartement yi ku ko man ngeen def ko seen buntu kër yi parce que boo jëndee boo monté caméra bi tey ku mel ne Aziz moom ñu rey ak Waly bu nekkoon ne si appartement am am na caméra surveillance bi ma am nii kon tey fu mu mënti nekk kon police dañ police sax du def enquête yow mi dëkk moom képp ku dëkk si kër gi rek wala nga dëkk si appartement mun nga télécharger application bi nga xam ne moom moo activé ak caméra bi nga xam ne foo toll da ngay gis sa kër man New York gii laay toog di xam sama kër lu muy yendoo su nekkee su heure bu ma neex ma neex mën naa dugg gis nga application nekk nii moo nekk ni mel ni kër gis nga su ma ne rek mu ubbeeku fu mu toll lii sama kër la foofu Sénégal luy dugg ak luy génn suma ma ñibbisee damay arrière caméra bi xool kër gi yëpp lu mu yendoo journée bi yëpp su ma neexee sama oto laay teg téléphone bi ni di xool kër gi kuy dugg ak kuy génn léegi sama soxna am na am na application bi si téléphone am sa doom mun na am application bi sa xarit kenn ku ne mun na am application bi nga xam mun na xool kër gi léegi police tey bi ñu reyee Aziz da nga da nga police gi li muy jëlee mooy day xool kenn si kër gi ku am téléphone bi ku am bi si téléphone am caméra bi parce que email bi da ngay dugal ak mot de passe bi mu xool arrière caméra bi xool ñan ñoo doon si kër gi ak kuy génn loolu sécurité la secret la boo xamante ni léegi adduna bi même sa oto sa boo gaaree sa kër di nelaw bu la neexee ku laal oto bi nga yëg ko te sa néeg ngay nekk wala sax nga nekk Amérique fii lii maa ngi ko gisee sama benn xarit comme que man dama sob di gëstu bu ñu wax Mohamed Cissé dañoo toog ma gis téléphone muy xool ay këram ay xaram yu nekk Sénégal kaw terrasse am ma ne ko waaw Mohamed yow lii ay xar la de looy seetaan nii mu ne ma non sama xar yi nekk Sénégal laay xool keroog laa jënd kam même kamera yi installé ko sama kër di xool luy dugg ak luy génn te loolu boobaa léegi yàgg na te lépp lu fa xew rek balaa maa tëdd dinaa xam lu fa xew damay arrière caméra bi di xool liy dugg ak liy génn kon maa ngi jox conseiller Euh, euh, ñii nga xamante ni yéen a ngi nekk Sénégal euh, te tey tiit seen njaboot di tiit seen kër baax na ba nga xamante ni même sa doom bu génnee jàngi sax mun nga xool ndax wàcc na heure bu muy wàcc ndax dugg na wala génn na kon yaakaar naa lii bu amoon ci appartement yi nga xam ne ñoom Aziz foofu lañ nekkoon kon amaana danañ gën a yombalal enquête bi sax police. fi may daanelee mooy li wax état bu Sénégal ñu gën a jàpp ci sécurité bi ci peuple bi parce que tey. fépp foo dem si àdduna bi policiers yi da ngay gis ñu circuler si biir koñ yi si biir gox yi di dem ak dikk ak seen oto loolu dana wàññi tension wu defkati ñaawteef yi tant que ñuy gis police di circuler rek sol tenue bi noonu oto bi di dem ak ñëw rek danañ ragal muy goudi muy bëccëg soxlawul sax ngay def ay ramasse ak ay ñom sen na auto police di circuler rek partout nak région bu nekk police di dem wala wala ñuy taxaw wala ñuy doxal sen tank lool day ragal lo ki wara def tank muy gis image bobu non kon ñu ngi sakku ci yeen xam nañ alal mo koy def ndax laaj na essence bu doy bu essence amul tamit police yi di genn di dox ak sen tank si gox goxani di dox di dem ak dik lolu dana inviter li nga xamne ngi xew di wax ne li tax nag sénégalais yi ñu mel ni patron de presse yi li tax ñu war a fay impôt bi ñu yoral Sénégal li tax képp koo xam ne da nekk Sénégal nga war a fay l'impôt l'impôt boobu si loolu lay dem. parce que li ñuy fay policiers yi ak alkaati yi mun na tuuti ba mooy waral ñu leen di monté si tali bi pour ñuy jàpp ay infraction loolu yëpp baax na waaye li ëpp solo mooy sécurité dafa am loo xam ne day alerte kon nañu taxaw si alerte boobu noonu fexe ba def police ñuy dugg di dox si koñ yi tant ñu ngi gis ne koñ bi police mu ngi baagante di dem ak dikk rek te ñaaw defkatu ñaaw te fi dañuy ragal waaye bu nekkee ne yow da ngay toog weer ay at doo gis police ci koñ bi mooy indi yi di am parce que Sénégal koñ yëpp a wéet police ci tali bi rek nga koy gis circulation kon ñu ngi ñaan ministre de l'intérieur ñu ngi ñaan président de la république ngeen renforcer sécurité bi bàyyi leen xel li ma leen wax ci caméra yi ut leen ay caméra képp ku ko man nga def ko sa kër yomb na application bi rek ngay télécharger application bi ak e email sa email ak caméra bi ñoom ñooy ñoom ñooy communiquer foo toll ma New York laa nekk di xam li xew sama kër di leen fàttali rek yóbbante le président Ousmane Sonko président Diomaye nee ngeen di jëmbat garab te bu ngeen di jëmbat garab na xam ne bu ëllëgee di ngeen ko mën di witti di lekk di ko jëriñoo di am ker am ne di nga witti di lekk te bañ a jëmbat garab goo ne xob rek la lay jox ak temps bi jël ba pare ngeen di ko toppatoo ba bu ko xar yi lekk ko bëy yi lekk comme ni ko Casamance yi defee te garab day indi taw kon jëmbat leen garab te di ko rafetlu ànd bi ngeen àndoon nag seen chaîne préférée seen njëriñ TV ñëwaat ci kàddu yi Cheikh Anne yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci insécurité bi nga xamante ne ma ngay law di gën di law ci réewum Sénégal faat ak boom rey yi ci boppam agression yi mel ne tulleeg màlle état bu Sénégal nag ñu koy woow ci mu gaawantu rek indi benn beneen solution sax bu bees boo xamante ne Sénégal yi dañuy yëg ni am na policier yu nekk seen biir am na gendarmerie yu wala ay gendarme du moins wala sax ay takk der yoo xam ne dañ leen gis ñuy circuler ci koñ bi wala oto yoo xam ne trente minutes wala une heure de temps bu ne mu jaar ci kaw yoon bi ba nit ñi xam ne ñun am nañu ñu nekkal ñoo xam ne ñooy yor suñu kaaraange ginnaaw yàlla bi nga xamante ne ku mucc moo la muccal bis boo xam ne sa bis la musoo munoo ci moo tax ñu war fagaru ñun ñëpp fagaru gi nag da ciy jiital état bu Sénégal bi nga xam ne moo yor suñu kaaraange ci wàllu euh, armée beeg wala policier yeeg wala gendarme wala militaire ñëpp Sénégal ci jamono ji wax dëgg yàlla ko wax ak ko waxul ñoo yem ñëpp a tiit parce que nag dee dafa tegaloo lool lool rey dafa tegaloo lool gars yi di agressé nu leen neex di def nu leen neex lan moo lan moo waral lu ñu mel loolee nag war nañ ci def benn taxaw seetlu état bu Sénégal def benn taxawaay boo xam ne ci wàllu doole gi nga xamante ne ñun peuple bi jox nañ ko mu sukkandiku ci doole boobu mën a jàppale wala sax aar population bi nga xamante ne saa su nekk bu ñu tëddee du ñu nelaw dem na ba nga xamante ne nit ñi sax bëgguñu investir ci réewum Sénégal ndax dañuy jàpp ne investir ci Sénégal mooy rek jël sa alal maanaam sànni ko ci ndox mi doo ci bën a am benn bénéfice wala doo ci am sécurité te ci yoon nag Sénégalais bi dëkk Sénégal juddoo fa yaroo fa war na mën a toog ci réewum Sénégal investir fa am fa alal dund fa ba màggatee fa ba faatu fa te loolu sax Sénégal yëpp bu ñu demee ba am sécurité bu mel noonu day éviter sax clandestin yi nga xam te ne immigration yi daan am ndax dañuy xam ne seen réew am na sécurité waaye dañuy yaakaar seen réew xam ne ñoom am nañu kaaraange ba mën a def seen commerce seen jaay seen jënd seen lépp dund fa ba keroog suñu borom di leen moom waaye loolu bu xasee ñàkk ci réew rek réew moomee ma nga ci guto